léeg-léeg nit dikk la nga laaj ko ndax jullit nga mu ne waaw nga ne ko lan mooy islaam mu ne xaw ma nga ne ko ndax da ngay seede laa ilaha illallah muhammad abduhu wa rasulu mu ne waaw nga laaj ko loolu muy firi mu ne xaw ma yiw nag nekk ko ci ki nga xamante ne abu jahl moom moo ko gën a xam lii di cosaan islam ngir abu jahl xamoon na loolu bañoon koo wax te moom njiit la ci yéeféer kon am na nit ñi ñooy woote wal islam te xamuñu laa ilaha illallah li muy firi njott na ni laa ilaha illallah gëm ko mooy amul ko bind amul koy wërsëgal amul koy doxal adduna bi kudul yàlla loolu du jëriñ ki ko wax ba te mu daldi teg ci loolu mooy kennal yàlla ci jaamu ci ay jëfam moom laa ilaha illallah mooy caabi aljanna waaye caabi boo gis nag dafi amee ay bëñ bëñ yi mooy charte laa ilaha illa allah bokk na ci charte laa ilaha illa allah bi gën a mag al ixlaas mooy sellal mooy képp ku wax laa ilaha illa allah dafa war ci yow nga daal di bàyyi bokkaale yàlla ñaareel bi mooy al ilm mooy xam-xam ni képp ku wax dafa war ci yow nga daal di xam baat bi li muy firi ni muy firi mooy amul ku ñu jaamu ci dëgg kudul yàlla mooy képp ku ñu jaamu kudul yàlla jaamu googu neen la waaye yàlla moom mooy ki ñu war a jaamu ci dëgg laa ilaha dafay dàqal keneen ku kudul yàlla yelloo bu mu yelloo jaamu ni jaam boobu neen la illallah dafay saxal yàlla mbooleem xeetub jaamu loolu tax yonte yàlla ibrahim alayhi salaam waxoon itam ni man de dañ naa ba set wàcc ci li ngeen di jaamu ba mu def ci yàlla mi nga xamante ne moom mooy ki ma bind yàlla waxaat ba ci alxuraan ni képp ku weddi lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu daal di gëm yàlla kon laa ilaha illallah mën ta ñàkk ñaari ponk yu ko téye ba te mu daal di mooy weddi ñuy jaamu te du yàlla ñaareel bi mooy kennal yàlla ci mbooleem xeetu jaamu nu ñuy seedee laa ilaha illallah noonu tamit la ñuy seedee ni muhammad yàlla moo ko yónni ni jaamu yàlla la kenn du ko jaamu waaye tamit yonent yàlla la kenn du ko weddi ba tax na doomu aadama saa yi demee ba askale yonte bi lenn ci rubu bi ni mën na na kumpa wala dafay dundal wa dafay rey kooku seedeegul ba léegi ne yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamu yàlla la loolu tax yàlla digal ko ci alquran mu ne ko qul waxal yow muhammad innama ana basharu mislukum man de nit la comme yéen waaye nag la ma teqati ak yéen mooy yuuxaa ilayya yàlla daf may wax yu te du leen wax yu